na fi kupp sëñ Tuubaa liggéey bi na fi kupp lislaam ak li mu santaane woon te sëñ Tuubaa lépp da ngay nax sa bopp rek ku ko ci def koo mën doon booy dee di dem sa milliard ab sëñ du ko am ak njabar mënu koo a addiyee munta maye milliard bay des fi am milliard waaw bu ñaaw rek ci la ñuy amee milliard ak lu dugg du génn te am fi téeméer te mosoo may nit mbaam loolu ku ko def loolu ñàkk ñàkk wërsëg mën fee ba dara waaye loo fi bàyyi moomoo ko duggoo ko dugaloo ko fa nga war a dugal man day li war ci sëñ Tuubaa njabootam gii doomam yi jii yii war ci njabootam gi ko yaakaar ak ñoo xam ne seen dox jógatu seen ba jotul seen gannaaw te du ko wax kenn nga yor alali sëñ Bamba ji di ko jënd yi pasaroo ki di ko tabaxi tabaxi ndi ko rek di ko politique ak di ko naan sàngara ak taxawaalu loo mën a doon ci sëñ Bamba da nga di ko tooñ waaye boo dee dem sawar képp xam ne kii dangaa judd ci kër sa rakk nga yor leen ñu góor ñi yaa leen di wutali jabar ñu jigéen ñi yaa leen di wutali jëkkër te yor leen seen biti jëkkër soxna yi sa baay yoroon te kenn dutu leen yor ku ci amul doom mel na am na doom rakk yi nga bokkal baay ñëpp ñoo lay gën ñi nga bokkal yenday sa wujji yaay yëpp la gënal sa yaay taali bii doon lëgg ba sa yaay ñëw ci kër gi bu ñu màggatee seen njaboot ak yaay war yor donc yi sa bàyyi toxaloon indi di fi kenn ku ne bàyyi na kër bàyyi amatul piñ sa bàyyi ko fi indi lu mu a wax ci àdduna yaa war a yor yaram ka lay dégg te mosu laa gis saw tur tax ko jóg yeesu téeméeri buntu kër yu kenn tëjut ñëw yaakaar la yaa ko tax yii di ko ko booleeg dépasse boo xam ne ku ñëw lekk ku ñëw naan di fay bori di dimbali nit ñi boo dee doo fi bàyyi juróomi dërëm faat Fatma daal ku mu dóoranteelu taalibe ku mu mën a doon ci yii mi dana la dóor boo fa ko nangoo boo ko nangoo loolu la yàlla boo fi juróomi dërëm te ngor ak taalibe ak sell ak baax ak mat dong a tax ay rakam yi dégguma fi ku bàyyi dërëm dégguma Moussa Bassir lu fi baax dégguma Mourou Bousso Dieng lu fi baax dégguma fi kañe dañ lu mu fa xanaa la dégguma benn mbàkki mbàkki man bu ñu ma ne am na milliard ma dégguma ko waaye damaa xam ne ñi ko suntul mbàkke te déggu it wala si ni yekk ni soona sahaaba wal fillata wala in fi xonaa fi sabilillahi day fa basirhum bi asabin alimin rek la si yàlla teg daal laa xam xam naa ne di def lala war daal ci ñëpp loo ci mënoon nga di ko yéene yow tabaxooy jàkka te man nga ko tabaxoo ay man nga ko fayaloo nit ay ay ay bor te nga ko doo fay lemp mi doo joxe nagal màggal doo doxe dara ci koor gi li muy rëy rëy doo ci def dara mbakki mbakki boo seen mel ne dalaa lay def taaw ngir di ñàkk di ñàkk la nga yor te yow lu jaay nan nen ak jaay dalli der ak jaay panu doonoo ko nga dem ba am milliard di nangu jabar yi waa kër Sëñ Tuubaa yeeg di tas ngoro yeeg anaan seen yi daañu liggéey ay daañu toog de baat soo sooy bilaas waaye jumlatiha wal bahlu maatoo wa bahlun bil asala loolu rek leen dal daal di diyaay sa agoo fa nga jëm ak tëdd ñaar fukki at ñi da la yëkkati ah na waŋ ba dootu am tubay yéenewu ma ko kenn de waaye jëfi ni man loolaa gis na man de ku may tëru fa sa ma gis ku bëgg ma àbb la oto doo ma doo ngóor du ma ne kenn ma sàppal na xorom du ma naa kenn aar ma ngóor su ma nit borom xaalis yëpp it laa yemale xaw ma benn borom xaalis li ma am ci sama wàllug yaay nga xam ne moor jaay mu jur sama yaay par junni yi bëri koy keesal da daa yor sëñ Bamba te booba kenn mun la bay téeméer de ay sa nga fi duñu yeex milliards yaa ngi yor it seen maama lañ ko liggéeyal man loolu moo doon sakoo loolaay sakoo bu ma doon laaj maa ngi laaj moo keneen ku mën a doon koo xam ne xam naa ne jëlee woo ko fenn nag loolu bëkk dem ngi nga xam ne bi nañ ko na am na ko ku baax am na ko ku bon am na ko loo am bu ma ci séenu bu ma ci tëru doo ma gis doo ma gis foofu daal laa ne léegi nag góorgóorlu ci jaamu yàlla Sëñ Tuubaa nag am na yu mu yetta yett yu mu yóbbaale yoo ne yóbbaale na ko te taalibe yi yéeguñu ko woo na maam Ceerno bi bëgg a dem ne ko Ceerno nit ñi fi ñëw ñoo fi indi seen bopp ku ci neer waxanaa la lay tax nu mën a ànd bis penc nag kenn du ma fa gis ndax defuma yàlla lu jar ñëw waxuma koy lu mu digle def naa ko lu mu tere musuma caa jaar foofu laa nekk ñoom gëm yàlla ak ragal yàlla ak topp yàlla nag laa digal di fi fi aji ku gëm yàlla dangay ngay ku gëm yàlla da ngay nanguy dogalam ku ragal yàlla dangay ngay tereem kuy topp yàlla da ngay jëfe ndigalam